yi ñuy seetaan na Hann bi waaw ñu ngi fii Yarax dañoo yëg benn information benn bateau émigré bu yëpp ay nit bu bëgg a teer fii ci Yarax tax askanu Yarax yëpp génn nekk ci boori géej gi di taal pëna rien pour bañ bateau bi teer fii parce que xamuñu bato bi ndax ñi mu yëpp dañoo amee corona wala déet dégg nañ ne nag dàqe nañ leen dëkk yu bari waaye fii lañ si doon teer si fii si yaraax waaye askanu yaraax yëpp génn nañ taxaw ci boori géej gi taal pëna ngir bañ bato boobu teer fi bu ko defee ñu waxtaan see quelques nit yi nga xamante ne génn si nañ ci mbedd mi rien que pour bañ xew-xew boobu am. waaw waaw dañ bëgg nga jàpp nga salaamaaleykum ñoo ngi jégal ñoom nag wax dëgg yàlla bëggoon nañ ngeen jàppale ñu parce que ñun amuñu lu dul suñu yaraax quoi. parce que tey booy seet benn cas amu fi te bëgguñu cas dugg fi dañ bëgg ngeen jàppale ñu yéen autorités yi parce que wax dëgg yàlla kenn nelawul seen yëpp génn nañ pour taxaw bañ te rek kon comme te corona wax te wax dëgg yàlla gaal yaa ngi teer fu nekk am na gaal gu fi jotoon di teer dañ ko wàññi bay saa yi moo tax ñun ñëpp ñu génn taxaw si taar tabaski jaral nañu fanaan fii suba ba bërset ngir yàlla ak yonent yi nañu autorité yi jàppale ñëw dimbali ñu taxaw ñu te yàlla rek tax parce que fii amul sécurité boo amoon sécurité tey wax fa dëgg yàlla du ñu génn mais policier tey côté tali bi rek la jël bàyyi géej gi te tëj nañ frontière yëpp gars tey foog naa si géej gi rek lañu mën a jaaree te wax fa dëgg yàlla bu ñëwee fekk fi kenn dañuy ñëw dugg ci biir koñ yi dañu jàppale ngir yàlla wax fa dëgg yàlla sonn nañ quoi parce que instant kenn mënul liggéey kenn mënul def dara war na fi yàlla ak yonent yi autorité yi jàppale la ñu te yàlla tax ñu ñëw ci booru géej gi policiers yi kaw jor yi kese nekku fi nañ ñëw ci booru géej gi wax fa dëgg yàlla ñu wàcc fi ñu sécu sécurité sécu nu ñu ko ciy waaw ñu jàppale quoi parce que sonn nañ wax fa dëgg yàlla dañu yor suñu liggéey war ko liggéey mënuñu liggéey. ñu fanaan ci taaju tefes gi nañ ñu jàppale te yàlla tax. naam sax couvre-feu baa ngi fi waaye teewul xale yi ba léegi dawuñu. ñu ngi ci boori géej gi di xaar ngir boobu ñëw tamit teer ci dëkk bi lor askan bi kon ba tey mbokk yi seetaan Hann bi ñoo ko déggandoo xale yaa ngi noonu waaw pare nañ ñoom ñëpp ma bien vrai que ne sax couvre-feu am na waaye xale yi gisuñu ko aar seen gox moo leen tax a jóg tax ba ñoom ñëpp génn bàyyi seen yi te taxaw di garder boori géej gi ndax ñenn yenn xale yi nee nañ kat bato boobee dafa am gaal yu mu fay fii gaali ndaw ndax bato bi mënul teer si fii sinon day am ay jafe-jafe gaal gu ndaw a leen jëli ci biir di leen yaale maanaam di leen yëpp.